delloo nuyoo cheikh bu baax bi. waaw tey ñu gis ki nga xamante ne mooy euh, Ahmed Aidara di maire bu Guédiawaye tey ñu indi ko fi nga xamante ne mooy tribunal fas yéene ko àtte ci yan condition lañ ko nar a àtte ak ci li nga xamante ne mooy ci jàpp bi ñu ko jàpp. yi ñu koy àttee je ne sais pas euh, jàpp bi ko jàpp euh, man sama xalaat ak bopp moo di comme lu yàgg am ci politique fii Sénégal dañ nguur day jaay doole opposant amoon na ci jamonoy Wade amoon na ci jamonoy juuf amoon na ci jamonoy Senghor amaat na nii mais lii lii doy ci mbir mi mooy maanaam ñun jànguñu ci li passé wala boog nguur bi fi nekk jàngu man yenn saa yi damay toog di reetaan quand je regarde su may xoolaat vidéo yi nga xam ni sunu président bi Macky Sall defoon na ko ak ñi mu àndal damay toog ba mu yàgg ma ne mais ñë mais est-ce que ñoom seen bopp dinañ toog di xoolaat image yi la loolu il faut nga nekk nit ku yàlla nattu pour ne sa yoon new pour def je fu fous il faut nga nekk ku yàlla nattu maanaam nga nekk ku yàlla fàtte yàlla bu ñu yàlla fàtte cest nekk koo xam ne yàlla dala ba pour nga mën loolu benn la pour juste diir que lii am nii ak Ahmed amul sens déjà amul sens euh, da ngay dox dem sa mairie non doo dox da ngay dugg sa oto amul sens tey jii nii juge bi toog ak Ahmed Aïdara bu ñu waxee droit kese droit kese boo dindee usus fructus nga wax droit de propriété nga teg ko nale nga wax droit public boo waxee droit public nga wax droit dem ci sens pénal ñu ne la waa ji ban crime la def munoo wax crime bu mu def amul juge bu ko mën a wax ñu ne la ah moom de dañ ko ne na dox waaw mu ne du dox day jël oto mu ne dañ ko ne na jël sa oto mu ne day dox parce que moment boobu dañoo interdire marche ñu ne waa mais fan ngeen interdine marche ñu ne place de la nation foofu la ñu interdire ku fa def ku fa def manifestation ñu ne waa yéen fu ngeen ko jàppee ñu ne waa boori këram géejawaay loolu amul sens donc ci wàllu yoon tegul fenn au contraire sax ñoom dañoo war a génn amet ne ko bal ñu àq ba pare sax dédommagé ko ndax dañ ko teg toor moom ak Déthié Fall ak maam Diarra Fam regardez ni ñu jàppee Mame Diarra Fam jigéen buy dox et puis et puis gars yi dañuy sax xaw a manqué tenue yenn saa yi kii Marius the same thing mais benn affaire moo am yàlla am na moom bu sonn yàlla am na lu mu jeexal mu jeex yàlla na ko jeexal gaaw ci lu gaaw ci lu leen di bett sax barke alxuraan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp jig ñu nag te ñoom dara bañ leen dal ñu nekk si jàmm mais ñun ñu am jàmm nag féex parce que Sénégalais yi dañu sonn Ahmed mu ngi ci biir dugg naa sànq pour gis ko deux à trois reprises jotuma ko gis ñu ne ma mu ngi ci cave bi tantôt ñu ne ma mu ngi ak procureur mais gis naa soxnaam mu ne ma gis na ko donc ça va il va bien. mu ngi ci condition yu normal mu condition yu baax. des conditions correctes on va dire. donc depuis commissariat bi mu nekkoon wax nañ ma ko il était bien traité. Euh, moom ci woon sax Ahmed wax na ma ko donc jàpp rek ne li am solo mooy surtout les agents forces de sécurité yi ndeysaan ñoo gën a nekk victime ñëpp dama leen sax yenn saa yi ñi dama leen di yërëm parfois damay ne ay waay ñii salaire yi ñu leen di fay baaxul mais ñu ngi leen di gàdduloo ak yàlla na yàlla roof leen kattan ak baax ba ñoom ñu bañ a gàddu àq après nag nit mën nga ne je m'en damay def sama liggéey mais ban liggéey ngay def liggéey boo xam ne boo retraité da nga koy rëccu ñu ci bëri am nañ benn taxawaay boo xam ne bi ñu retraité moo tax dañ gay gis ku retraité ñu yërëm ko xamal tax ñu koy yërëm mais àq bee bare day dajaloo ba pare di topp seen njaboot moo tax dañu war a def attention parce que léeg-léeg gars yi def leen loo xam ne dañuy lor nit lor yàlla mais ku nekk affaire bi waat ci ñoom këpp waat ci seen ay njaboot te loolu yaa ci àll musal musal leen ci donc juste dire que daal ni xew nii dañuy ñaan mu mu mu down affaire yi wàcc ñëpp nekk si jàmm mais jàmm nag si kaw dëgg lay lalu. su lalul si koy dëgg du doon jàmm. mais est ce que nekkul tamit ci opposants yi mooy ci côté li nga xamante mooy ñu dañuy forcer est ce que nekkul tamit loolu moo tax état bi tey xaw a ni affaire bi. comme si li bi ñu bëggoon def pour ñu may leen ba mu euh, indi jéey yi yëpp. ah loolu indiwul jéeya c'est-à-dire xam nga lan moo indi jéeya mhm. kon saa veut dire quoi kon man tey ñu ma nee bul marché fii automatiquement su ma marché rek dañ may dóorbal dañoo rey ñetti nit dañu rey ñetti nit grand c'est-à-dire que c'est pas une question de bi ñoo bougé ñoo def ñoo yëngatu moo tax dara am demeewul noonu c'est-à-dire que ci kayit yi kayit yi président Macky Sall bindaat en 2016 ñu def ci référendum moom mu bëgg wii ñi ne non mais ci kayit ga dañ ci bind ne sénégalais li Abdoulaye bindoon am na droit jóg ne dafay dem yor pancarte waa léegi je pose une question man su ma jëlee pancarte benn pancarte bind ci libéré ay dara def nii kon dañ may jàpp léegi ban buñ ma jàppee ci ban juge lañ may yóbbu léegi moom bu jàkkaarloog man lu may wax outrage ak lan trouble public mais c'est de la fumisterie grand loolu yëfi munaafiqun la Sénégal nag faw nuy waxante dëgg opposition bi deful dara yorul arme yorul armée opposition bi dafa ne génn leen ñu ñaxtu suñu problème génn leen ñu wax ne dëkk bi dafa metti génn leen ñu wax li ñu metti génn leen ñu wax ne doxul génn leen ñu ne Sénégal doxatul ñi fi tege du dëgg du yoon waaw ñooñu boo jógee song leen dóor leen wéq leen këdd leen tiire ci seen kaw après ñu ne non ñoom ñoo waroon toog te injustice di kondi am loolu fu mu am tegul si dëgg tegul si dëgg jërëjëf jaajëf baax a baax tey gis taxawaay bi nga xamante ne tey euh, ñuy arrêté yi nga xam monsieur le maire Ahmed Aïdara daal koy arrêté di ko jugé fi nga xamante mooy tribunal bu Guédiawaye ci yan condition la ñu jàppee Ahmed Aïdara ci yan condition la ko juge bi tey la nar a jàkkaaroo Ahmed Aïdara daal ko ciy koy juge bi bu ñu taxee ak moom loolu la ñu koy laal lan la jàppee Ahmed parce que nit kuy génn liggéeyam dem di liggéey di dox dem di liggéey nga ne ko waroo dox a nga war a dugg sa oto ñëpp xamee nañ ko day dox buy liggéey parce que moom moom maire bu modeste la moom maire bu simple la génn këram dox di liggéey ñu wax lan moo tax ngay dox marché boo xam ne 15 heures la war a commencé Ameth génn 10 heures këram dox di liggéey nga arrêté ko léegi ci an yan condition nga koy jàppee yan condition nga koy jàppee loolu lañ ko bëgg a laaj ñun loolu rek lañ ko bëgg a laaj Macky Sall il faut mu arrêté moom ak njabootam parce que lii yëpp moom la parce que pendant quinze ans ngi 20 ans muy wër Ameth amul fu mu ko mën a loxo mais ci genre cas espèce yi rek la mën a profité pour jàpp ko mais Ameth defu leen dara quoi Ameth defu leen dara Ameth dafa nekk ci liggéeyam di liggéey liggéeyam comprendre Ahmed c'est la première magistrat de la ville de Guédiawaye amul benn accès bu ko nit war a téewee depuis vendredi ba léegi tegoo ko ci benn condition pourquoi pas ban raison lañ ko téewee laa bëgg a xam il faut ñoom ñu arrêté li yàlla def def na ko ba pare Alioune Sall mooy rakku président de la République Ahmed Aïdara moo ko jàpp buddi ko ba ci kaw ko ci suuf nan muñ loolu naqar boobu moo de seen nan ko muñ waaw mais tey ci li nga xamante mooy Ahmed Aidara actuellement xamuñu fu mu nar a mujjee ka retour parquet xamuñu ne moo a am xamuñu dañ ko nar a jël defeere ko lan moo day génn ci kattanu yàlla ñun ak yéen ñooy bokk fa nuy añee ñooy bokk reer Ahmed day génn ci kattanu yàlla incha allahu rabbi dina ñibbi tey këram waaw lu ñu yaakaaral luy am la ci kattanu yàlla parce que Ahmed kenn mënu koo téye fii ci yan condition nga koy téewee yan condition wala Ahmed moom warul dox Ahmed dafa warul dox ah mais léegi lan mooy problème bi si da Aline Sow maire ba mënu koo dox lan lañ bëgg ah ñu bàyyi jàmbur waay mais gis nañ saa bu may euh, sotti bi amee si opposants yi manifestation yi moor yi ci commencé am xale yi si nekk bakkan keroog li am rek trois morts am na ci te rafetul ñoom ñooy génne seen ñoom ñooy génne seen sacrifice rek saraxe doomu jàmbur yi ñoom ñooy génne seen sacrifice saraxe doomu jàmbur yi la kaa la kaa gaala Pikine ki rey Fatou Kiné ci yenn condition yi la ko rey yooyu bu ko nit ñi def duñ ko duñ tey ñoom ñooy génne sarax di saraxe doomu jàmbur yi loolu kese la mais du la nen nañu bàyyi ñun jàmm lañ woote mais lu nit bëgg lu nit bëgg bu ñëwee fii dina ko fekk ci kattanu yàlla jërëjëf